jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokki internet yi tey comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñëpp xam nañ ne ñu ngi ci njaareem adduna bi yëpp xam nañ ne ñu ngi ci bawol waaye nag bawol boo ñëwee da ngay jaar ci bunt bi boo bañee réer ci kawi kàddu wala nga bañ a réer cim xel dama toog ak koo xam ne dictionnaire u lamb la lamb lu ko réer ci lamb rek xamal ne loolu amul njariñ te lu mu la wax ci lamb loolu téere la boo ko takkee di nga ci gis firnde. Père Xawsu man maa lay présenté lamb njaareem xam nañu la Ndakaar am na ñu la jot a xam waaye ay bu ñu xamoon lii ne la si sa bopp bi nuyu naa la. waaw maa lay fay bas euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan wasaare lamb di la jaajëfal di kontaan ci a torop nag. ci lutte avec frappe bi ponkal yi yi nekk ci kaw tafaati na nga nële ca kaw uh-huh. ñu doon wax di naan. VIP yëpp ñaari mbër rek la ci laaleel muy Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier mësta laaleeg Eumeu Sène mësta laaleeg Gris Bordeaux mësta laaleeg Modou Lo te tey Tapha bokk na ci mbër yi nga xam ne mënul am combat ginnaaw Ama Baldé mi nga xam ne bëre woon na ak moom ca tournoi ba moom la ñuy tuddaat est-ce que loolu jaadu na ci mbër moo xam ne VIP ñi nga bëreelut moo ëpp ñi nga bëreel. ba sama ko wax ba taay Tapha moo des. ginnaaw moo des parce que dañuy am problème am na ku ñu wax nekkoon na ci ñoom ma gis ñu am problème Tapha ci boppam dafa amul ginnaaw mais mbër maanaam bu dee mbër doon na mat na mbër am na lu des ci moom tamit muy Tapha Tine nit koo xam ne kuy complexe la te réew mi ñoo ko bokk ñoo ko moom ko juddoo fële ca catu Sénégal ak ka juddoo Dakar ka juddoo feneen ci bokk yam réew mi benn la. képp foo ci juddoo yar la fi ñu la war yar nga nekk dem di rampe di rampe ba nekk champion da ngay gëm sa bopp xam yow yaay kan mais complexe moo baaxu ci nit nit da ngay gëm sa bopp. complexe ci naka Père Xawsu. waaw xam nga tamatin ni mu toll nii ak li mu def ci mbapat yëpp ak li nga xamante ni moo war nekk ci moom ak li mu représenté li mu représenté muy bawal yaakaar na loolu da ko waroon a doy fu mu mën a taxaw. mu wane boppam mais Tapha Tine da ngay gis muy bëre mu leer ni kii fi mu taxaw taxawul nekkul ci ci ci ci mbër mu toll ni moom taxawul ay tànkam taxawul bas loolu su ma koy xool sama xol bi day jeex sax ndax man li mbër li ma ci xam ak gàllaaj lu mu bëri bëri bëri man xam na ni man yooyu gaw moo a sax li ma gëm mooy entraîner mën a bëre mën a xeex ñeme am doole am fit am ginnaaw am ku lay xelal wax la ni la kii lii lay indi ak lii ak lii ak lii defal lii ak lii ak lii nga def ko génn ci man loolu laa xam ndax euh, la ko wax mooy bu mbër daanoo bu mbër daanoo sëriñ juum ñaata mbër ñaata sëriñ ñooy juum kon. tey ñaata sëriñ a juum. tey ñaata sëriñ a juum kon li nga tëral moom da ngay mën a bëre am doole am ginnaaw amul fit lépp da nga koy am da nga koy boole surtout nag ginnaaw ka mooy lañ lay wax la defal nii defal nii defal nii mbas man loolu laa xam waaye wax dëgg yàlla footballkat yaa ngi nekk ay milliardaire ah, di football lu nekk te. takkuñu téere takkuñu dara. décidé amul sëriñ. ah man de gisuma ko. kiris amul sëriñ. man man de. waaye kon si de mos naa ñëw xombal. loolu sa la rek loolu yëgu ma ko woon bas yëgu ma ko de. mais xam nga ne si ñëw na xombal. déedéet eh, waxuma ko ma waaw li ma mën a xam daal mooy balaa booba dinaa la wax ni la Tapha Tine diggante ba Gris Bordeaux war naa mën a neex ndax Gris mu ngi ci fin de carrière am te bu jëlul Bombardier war naa mën a jël Tapha Tine ndax dafa war a jox Bombardier revanche ndax da koo daanoon te mu ngi ci fin de carrière am Bombardier tamit mu ngi ci fin de carrière am bu ñu dajee ñu boole ca xale yu bëri coow combat ba war naa neex Gris Bordeaux war naa mën a daje ki nga xamante ne bi moom mooy Tapha Tine loolu lu jaadu la. loolu dara gënu koo neex su ko defee kenn ku ci nekk mën caa gagné ndax tabatin bu génn ci Gris Bordeaux ak victoire day am lu bëri ndax Gris daan na fi ku nekk bëri na fee ku nekk te ñi ko daan tamit tabatin da leen tàllal loxo leen ñëw lu bëri yéen a daan Gris Bordeaux dama koo daan diggante nga seeres nag ñooñu ñoom ña nga ca leneen ama ama seen tafatin kooku neex na ama seen tafatin neex na parce ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk daan bombardier kon ñoom ñaar dañoo war a bëre Eumeu Sène dafa daan Bombardier Tapha Tine daan Bombardier kon lan moo leen tere ñu bëre ñoom ñaar. Modou Lo Tapha Tine. Modou Lo Tapha Tine loolu moom yombul waaw Tapha Tine la ma waxoon bu njëkk ba daaw loolu laay wax bas Modou Lo adversaire am bi nga xamante ni mooy adversaire am fi nekk nii moo sës rek mooy Ama Baldé na bëreeg moom bu koy daan daan ko jàll bu ko Ama Baldé daanee mu xam ne daan na ko loolu mooy làmb ji. mais xaw si su mil foofu say weer ma ñëw. dinaa sama weer.